tey nag dañoo ñëwoon seet si parti politique bi di PASTEF jaaree ko ci président am Ousmane Sonko nga xam ne moo ñu recevoir kontaan ci lool ndax euh, ñun euh, collectif noonu Lank dañu doon seeti euh, ndax dañuy waajal ay manifestation yu mag a mag a mag te li ñu tax a jóg mooy ñu wàññi courant bi bi nga xam ne dañ koy yokk te tamit ñu bàyyi suñu ñooñ yi nga xam ne ay aji bëgg réew lañ muy ci mel ni Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Fallou Galass Seck yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi tey te ñoo ngi ñu bàyyi foofu noonu arbitrairement tey li li taxoon ñu tase tey mooy euh, ngir ñu yeesalaat euh, parti Pastef bi euh, bokkam bokkaayam ci collectif non lank li tax parce que Pastef yàgg na bokk ci ay membre Pastef yu bëri nag mën nañu wax ne sax dañuy ñëw ci manifestation yi daanaka sax suñuy jàpp ay ay ay ay ay ay suñuy suñuy élément nga xam ne non lank waa Pastef da ciy bokk donc jàpp nañ ne Pastef déjà moo ngi ci biir waaye tamit dañ doon yeesalaay suñu yeesalaat suñu taxawaay ngir fas yéene partager suñuy xalaat ngir Euh, manifestation yi nii di di waaj a ñëw dañoo jàpp ne tamit nag dañoo war a seeti ñëpp ñoo xam ne ils partagent le combat ñëpp ñoo xam ne ils sont engagés ñoo xam ne ils assument position xam nga ne ñun ñii duñ dem seeti n'importe qui dañu seeti tamit ñëpp donc ñëpp ñu ñuy seeti dañuy xam ne carrément dañoo nekk dañ fee toggal askan wi te ñoo xam ne yàgg nañoo xeex ngir euh, population bi ñu jël seeni revendication léegi nag loolu je que loolu kese la woon ah. léegi mhm. euh, nangul nañ seen càkkuteef. càkkuteef. ñoom comme que euh, organisation bu bu bu organiser la dañuy fas yéene nañu jox nañu euh, sañ xalaat ne tak dinañ toog waxtaan ak seen parti politique xool ban taxawaay la ñu gën a am ci biir collectif bi. sur notre demande nous sommes venus rencontrer le président Ousmane Sonko pour lui expliquer ce que nous sommes en train de faire mais également pour solliciter son expertise. la participation de PASTEF dans ce que nous sommes en train de faire dans le front Noo Lank Noo Bañ. Je crois que dans cette série de rencontres, il y a des leaders qui aujourd'hui jouent un rôle essentiel dans le combat de tous les jours que les Sénégalais sont en train de mener pour de meilleures conditions de vie et de travail. Et nous ne le dirons jamais assez, le président Ousmane Sonko, si ce n'est la figure de proue, fait partie de ces leaders-là. C'est pourquoi c'est avec plaisir et une très grande satisfaction que nous informons l'opinion publique nationale et internationale que le président Sonko nous a déjà donné son avis en tant que leader, un avis favorable, mais également il nous a rassuré qu'il rendra compte aux instances de son parti et que nous pouvons être tranquilles que PASTEF est un parti qui est là pour se battre aux côtés des populations. Et si un tel combat contre la hausse des prix de l'électricité, un combat contre l'emprisonnement arbitraire de beaucoup de leaders d'opinion est engagé par un front dénommé Ñoo Lank la place logique et naturelle de PASTEF c'est de se trouver dans ce cadre de lutte donc aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et que avec la présence de PASTEF à nos côtés la lutte connaîtra une autre envergure et ce sera tout à l'honneur des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont aujourd'hui étreints par la cherté de la vie étreint par des factures qui sont devenues insupportables je vous remercie. dañuy doore suñu waxtaan ci gërëm waa collectif ñoo lànk euh, rawatina seen groupe de contact bi nga xam ne ñëwoon nañu ziar si tey euh, waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moo mooy seen moo lal seen seen seen combat bi ñuy xeex te li ci gën a fës di courant bi waaye jàpp naa ni mun na weesu courant bi sax ndax réew mi lépp a yokk te dama ko waxoon ci njëlbeen yàgg na ne dina ah, dinañu seetaan nag sàggan ba fal Macky Sall waaye juróomi at yi di néew dina métti trop ci sénégalais yi moom mu dellu si taxaw keroog ne 2020 va tànge ci olof daal mooy 2020 dina tar kon ñu xam ni courant bi lenn lu ndaw rek la woon ci mbir mi waaye yokk bi commencé na bu yàgg ci yeneen denrée yoo xam ne peut-être euh, bàyyiwuñ ci woon xel te dina gën a dina gën a continuer di di yokku kon su amee ay sénégalais yoo xam ne mënoon nañu toog ni ñëpp parce que ñii ma fi gis ñëpp nag wax dëgg yàlla suñu yokkee dina métti ci ñoom waaye am nañu lu ñu fayee ndax ku nekk yaa ngi jàpp ci li nga jàpp te am nga sa sutura waaye suñu ànd ak loolu yëpp suñu bàyyi seen lépp jël seen alal jël seen temps ndax heure bi heure liggéey la ñu jël seen temps jël seen alal bàyyi seen yitte yëpp di jël ay risques ba lu ne mun leen ci fekk ñu leen di gazé euh, naam sax du ñoom rek ndax defe naa bële passé moom journaliste jël nañ seen wàll di leen duma di leen tugal kaso yooyu yëpp ñu ko ciy dund jàpp naa ni bëgg réew mi moo tax ñu koy def kon loolu mënuñu lu dul di leen ci jaajëfal di leen euh, encourager parce que soo nekkee ci yu mel nii te léeg-léeg mu mel ni lu bëri ci askan wi dañ koo yëgalul seen yaram ndax boo wootee léeg-léeg boo moytu nul euh, ñi fay ñëw du bëri ci loo xam ne rek ñëpp la lor ndax courant bi bu yokkoo yokkuwul pour professeur Malick Ndiaye dong wala pour Zoumarou dong wala pour Guèye dong waaye defe naa Sénégal yëpp a ko yéeg léeg-léeg su demee noonu nag mun nga dem ba xaw a am loo yëg mu andi découragement waaye combat bu noble la mooy euh, jaamu yàlla la taxawal askan wi jaamu yàlla la te ñoom ci loolu lañu nekk kon ñu ngi leen di gën a di leen feddali suñu participation ci lépp lu ñuy def ndax dama wax léegi ni Pastef euh, en tant que parti politique ñun bu ñuy door sax dañ ne woon ñun nous sommes un parti politique citoyen mooy suñu xeex li ci gën a fës mooy nu ñuy def ba gindi askan wi yee leen di leen jox la bonne information parce que bëri na ci askanu ñoo xam ne ñi ngi jàmbat métti ñi ngi jàmbat méttitu dund gi ñi ngi jàmbat jafe-jafe yi mais amuñu instruments yi wala amuñu information yi pour xam di tax mbir mi demee noonu donc ñun bi ñuy door suñu premier objectif mooy fexe woon ba li ñuy wax éveil des consciences yee citoyens yi di leen wax lan la nguur gi di doxee naka lañ ko yoree lan moo ci baax lan moo ci baaxul te bëri na euh, lu ñu niroo ci fànn woowu ak ak mouvement citoyen yi moo tax dañu demoon ba nit ñi dañ naan Ousmane Sonko moom lanceur d'alerte la moom dénoncé rek lay def fekk du loolu kon su dee loolu mooy suñu suñu li li fondé suñu parti question yu mel nii mënuñoo mënuñu see ñàkk a euh, participer moo tax bi ñu commencé ba léegi collectif yi ñu mës a def yëpp non au franc CFA euh, euh, nu mu tudd collectif non aux accords de partenariat économique collectif pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers du Sénégal aar lu ñu bokk ak ba bii nga xam ne mooy ñoo euh, mu suñu see euh, génne suñu loxo te li koy firndeel rek mooy saa su manifestation amee yéen ñi di journaliste yi fa teew gis ngeen ni euh, membre Pastef yi dañ fay bëri trop dañuy mobiliser lu bëri ñaareel bi mooy fu ñu jàpp ay nit fu ñu ne jàpp nañu fukki nit boo moytul juróomi waa Pastef lañu directement wala indirectement kon lii euh, euh, formalité rek la woon pour lii nga xam ne euh, ñu ngi koy liggéey ñu waxtaan ci ba gën a diisoo gën a dëppale ci méthode ak ci ni ñu war a doxalee mais ñoom xam nañu déjà que Pastef moom mosul génnee loxoom ci mbir mi waaye bis ni ki tey bu soobee yàlla dinañu lépp lu ñu doon def dinañ ko ful dinañ ci gën a jàpp dinañu mobiliser suñuy nit ndaw ñu jigéen ñi mag ñi dina dinañu lancer ay appel ba nga xam ne combat bi nga xam ne sénégalais yëpp la concerné au-delà de Pastef képp kuy suñu sympathisant rek wala képp kuy citoyen boo xam ne même soo àndul ak ñun Sénégal ñor na la war ngaa mën a jàpp ni lii du combat wu Massamba wala ma dem ba ñu mobiliser wu ba mm, nguuru Macky Sall dellu gannaaw euh, euh, yërëm askan wi tuuti ba teg gi coono gi mu bëgg teg coono gi eh, askan wi te muy yokk facture courant yi